bu xarañ loo man maa xarañ loo fii diis man maa ko doon jaay fii ndékki ah waaw maa ngi kër Morlo kontaan rek mbégte victoire bettuñu ndax ñun ñun wóolu nañ sunu mbër macha allah am na jom fulla fayda wax dëgg fa yàlla loolu lañ gis ci moom ñun xalaatoon nañu ndam bi day ñëw fi inte diis day ñëw waa ñu dañoo wóolu sunu mbër xam nañ bu baax kuy xarañ lool hmm? Ama Baldé boo seetloo dafa tiit sa ngom bu bëri bi yëpp ñun par nañ bi ak di ko xaar ñun ak leer lañ ñëwee ci biir stade bi ci terrain bi leer ak sell bëri ko ci fulaak fayda wan ko duñ ko mënee dóor ko daan ko noonu lañ def jëli bu leer nañ bu amul benn werante hmm? téyewaat suñu couronne ba mu baax. maa ngi lay fay Anta bu Modou waa waaw ah ñun fii lañ dëkk di si kër gi kontaan xanaa bëgg rek ah maa xam na lu ko doon xaar waaw ñun ñun avant bi Modou di dem stade lañ commencé jubilé ndax xamoon nañ day dem jëli ñëwaat day jëli ndam li ñëwaat ñun ak lu mun a xew xamoon na ñun ndam li day daf ñu fekk fii ndax ñun xam luñ benn moroom benn gune ndax ñun xam nga ko ñu tëwoon ci àdduna papa Eumeu moo ñu tëwoon te dañ ko tegal si daan ko te boobu dañoo def gàllaaju def lépp mais bi biñ ñëwee am nga ko xeeb sa da nga xeeb sa xal mu lakk sa dàgga daf ñoo xeeb boobu ñu dóor ba mu bëgg def 22 coups lañ ko door bët bàyyi noon daa pat te bu bu kooku àttewul woon ay bañ a may wat luñ moromam nekk mu dem tëddi te xa da sawi te tëddi ñun leen fu ngeen ñu xaar démb rek foofu fekk na fekk nañu fa ñu xaar toog di xaar te ni ñu ngi bëggee ba léegi pare ñu de ni nii dañu noppal demaat ci wàllu entraînement bi moom boo yor tamit ñun dugg nañ Pikine ñaari yoon nañu gaat mu ñett yow waa Pikine ñu ñun ñu ni waa Pikine bu ñu séenee ñu ñëw dañuy daw di dugg si kër yi di tëju di laaxatu déggoo ma de waa Pikine bu ñu séenee dañuy dugg ci kër yi di laaxatu mooy bët noir waa Pikine moom rek lañ teg muy lu seen morom fépp nag foo ko xalaatee kooku champion foo ko woo mu wisi la ah non kooku day xaar la da ko yërëm parce que Balla chaque jour da koy dee naan ko bàyyi rek ma daan la garaaw sama gaayan nga ndax waa géej waay man lañ yaakaar léegi su ko dee lool ci ci sëggante bi da koy baay mu daan ko noonu la demee waaw <laughs> kontaan ci yow rek ah Modou du wax kontaan nañ si moom rek di ko na yokk rek saa yu dee na neel ta xam ne ñu ngi ci ginnaawam kom kuddu doo lakk te ñooy kuddu yi loolu rek la di ko ñaanal gudd fan ak wér rek lu mu mën gën koo gën a yokk man mën man lu dëgg ah yàlla moom man démb moom dama kontaan kontaan boo xam ne mosuma ko kontaan quoi wax dëgg yàlla te maa ngi nii ba léegi sax sama voix yi mënul dellu si ngir kontaan di sible zibale yu metti billaahi di sant yàlla nag boo gën a sant parce que boo gisee li kontaan bi yëpp moom moo tax voilà ñun incha allah rek la ñuy dundee Modou Lo dafa yàgg di wax di wax incha allah kon démb yàllaa ñëw voilà moo tax mu demee nii quoi voilà. ah man daal lu may lu may wax Modou Lo mooy mu gën a yokk effort champion la quoi loolu moom jarul sax wax loolu bu wax wax bu yàqu la wax bu yàqu la lu ma koy wax na yokk effort. est-ce que comprendre voilà te bu mu tiit bu mu ragal ñu ngi ginnaawam ñun moom rek la ñuy topp keneen ku dul Modou xamuñu la voilà voilà ku yore supporter téye ko xam nga voilà man maa ngi nii dëgguma fii de maintenant laa dëkk mais Modou Lo laay nooyee man dama juddu rek yàlla def ko ci man voilà maintenant laa dëkk fii laa ñëw heure bii nii bu ma gisee ku dëkk Parcelles sax damay kontaan si yow ngir Modou Lo waaw kon Modou Lo a jaral loolu quoi. man li ma koy wax mooy Modou Lo lu mu takkul sax kontaan naa ci bu baax ñàkk takk bi billahi dama ci kontaan parce que dafa gën a dafa gën a genre dafa dafa day gën a yëg boppam quoi ñàkk takk bi noonu ma daan ci saa waay won ko ni combat bi man defuma ci 1000 francs dafa si 100 francs nga ne 1000 francs ay ñu yab de 100 francs non benn la rek est-ce que comprendre kon dërëm defuma ko si dërëm defuma voilà man li may wax mooy na ma jàppale quoi bu ma da bu ma daanalee kii euh, Boy Niang mu jaar fa bàyyi bëre quoi parce que damay ragal damay ragal dee ñu ne moom moo ma rey genre dama doon supporter rek dee foofu na ma daanal saa waay baay lu mu def ñun palmarès am doy na. ba mën na jaar loolu mën na ko. loolu méttiwul man komba combat bee laa gënoon jàpp ni sa combat la waaye loolu loolu ñoom la rek loolu loolu seen bagage la suñu yoon nekku si billaay wallaay seen feebar la quoi ñun daal ñu ngi ginnaaw Modou waaw topp waa waa waaw képp ku supporté ñu ngi sa ginaaw mais waa Pikine nañ xoole lu ñuy def voilà waaw di maa ngi di nuyu ñëpp waa parcelle waa maintenant maintenant nag di waxu di wax ñëw parcelle maintenant maintenant comme parcelle billaay wallaay démb démb doo comprendre yàkka yeeg waaye dafa neex day neex rek Modou moo mel noonu billaay wallaay waaw di leen gërëm yi ñëpp waaw di nuyu waa maintenant nag Njogu Sow waaw waaw ni ñu ko dundee kontaan rek kontaan waaye nag dara nekku ci mbetteel si ñun parce que nekkoon na lu ñu foogoon la ci suñu mbër ndax confiance lañu àndee ak moom parce que xam nañ li nekk ci moom parce que xamee bu yàgg la bala moo doon mbër xam nañ ko xam nañ fi fitam tool te bi mu entraîné tamit xam nañ fi dooleem tool xam-xam bëreem moom macha allah yàlla ci yàlla laf cat waaw. waaw mobilisation bi tamit loolu dafa war parce que Modou doomu parcelle la fii la juddoo fii la yaroo kon donc waa parcelle ñoo ko war a gunge bay ci seen waar ñu yëngal ci kaw mu yëngal ci suuf waaw victoire bi tamit mbiru yàlla la yàlla mooy dogal mais teewul ñun suñu ci suñu conscience amoon nañ confiance boo xam ne vraiment jàpp nañ suñu mbër mooy daan amuñu woon benn yoon xel ñaar ci ne moom mooy daan parce que Modou dafa neex a àndal. dafa ñëmé ci limi def mën limi def lolo tax wa am nañ combat bu ñi xaar moy ci digganteem ak Boy ñaan ah wax deug yalla di ñaan yalla aussi tamit yalla yobu ñu ci yalla tamit defal ñu nawon fawon ñu yëng ñu defal nañ doon def rek yalla may ñu ci ndam ci kàttanu yalla loolu rek leen di ñaan jërëjëf soxna sa dala ziar ñu dëgg parcel fi de 15. Jean René Sagnan hmm? non démba neex trop moom macha allah mu def démba moom kontaan nañ trop victoire bi neex na yëg nañ ko moo du kese kay waaw démb si guddi dañ ma jox sama xaasu reer ñu ne ma demal nga reer ma ne leen dama reer dama dem tamponné sama yére yi ndax moo du jaral na ma ko moom kese waaw moom léegi la ñuy nice hmm waaw des na lu bari moom waaw booy ñaa lañuy xaar rek jox ko kaat kuu yi dal kuu yi der yi kuu yi kuu yi del yi dañ koy jox kaat kaat kuu yi des ñaata la vingt-deux kaat moo des kaat moom lañ koy dencal waaw ñu dencal ko booy ñaa bu ñëwee rek ñu jox ko mu jeex taak non kooku mënu dara kooku comprendre nañu kooku bu gisee lu ñu def ne moom ma dama ajal bosom kese voilà kese nice kay ah non ah kay waaw du mystique non takkul galaaj takkul dara dafa ñëw woon ko man ba pat laa jaar voilà woon ko ni mun ëpp doole man lu ma si gën a jaaxal rek Ama Baldé lu mu wotee mairie Ndel Fonde rek ah moom ma gën a métti man na delloo waa mairie seen Ndel Fonde ngi kese garaw yi voilà te moom xam na ni ñamewul xale bi xale bi moo ko mun ma ko ëpp doole moom kese voilà non maa ngi leen di di leen di gërëm ñu delloo seen xel ñu xam ne wooy naa mu ngi ñëw nañu war a xumbalaat ñun pareeguñu ba tey dañu delloo suñu xel rek ñu war a xaaraat beneen combat bi ñëw ñu defaree ko bagage mu gën a neexaat. doole ziar Abdou Ndiaye dëkk Rufisque Tëngéej waaw sant yàlla bu wér wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin parce que loolu lañ doon ñaan yàlla suñu borom suñu borom defal ñu ko maanaam mooy sutura yàlla suturaal nañu suturaal waa parcelle suturaal Modou Lo kon dañuy dellu ginnaaw sant yàlla parce que yàlla def ne lu ma la may jëlal kon yàlla may nañu ndam nag. ñu ngi sant yàlla bu baax di ko ñaan combat bi ci des mu gën a neex bii incha allah waaw ñu gën ko jàppale gën vigilant gën ko jàppale xam ne champion lañ yor champion nag instant bi Modou Lo amatul luñ koy laaj sax parce que li ñu soxlaa da jox nañu ko mais dañ koy gunge mu gunge xale yi ñoom Petit Lo ak ñi des mais li ñuy ñaan moo yàlla musal ko si cat yàlla naka yàlla musal si cat. combat bu ah bii bii nii xam nga nee nañu Boy Niang moo dàq bëre mais bii moo gën a neex sax Boy Niang bii nii ok dañ koy daan incha allah non Pikine dañoo xam saraxam Pikine dañoo xam seen sarax te gooma de man tëngeej laa dëkk tëngeej Pikine dañoo xam seen sarax Pikine duñ fi am dara noonu la demee nag loolu la yàlla dogal ñu nangu dañ ko nangu noonu. ok jaajëf yàlla na yàlla def jàmm jaajëf. waaw ñoo ngi lay dolli ziar di la béggee man man la Modou Ndiaye mu Pikin waaw léegi Modou mu xarañ loo la léegi Modou Pikin xarañ loo moo leen nuyu waa passé di leen béggee di leen jox seen waay di leen wax ne bis ngi tay kontaan naa si Modou xarañ loo lu ma mësoon a jooyloo jooyloo na ma 2010 jooyloo ma 2018 kontaan naa si 2023 bis ngi tay Modou Lo laa gën a xam si mbër moom laa njëkk xam si mbër te Pikine laa dëgg teg saako ñetti mbaar ndax Modou xarañ Lo moo ma jaral lu nekk sama àdduna moo ma jaral démb ma bàyyi kii suñu kër ay 10 heures ñëw fii ndax Modou Lo ànd ak moom dem ba parcelle ma ñëw de ba Pikine jëli ndam bi ñëw indi ko biir parcelle day war bi Pikine démb te boo xëyee liggéeyu ma ñëw biir parcelle ndax sama mbër mi kii sigil na ma fu nekk te boo ñaanal moom bis bu dof dof loo ba dugg si gaaru moo loo bis ngi tay dana ko réccu Boy Niang du bisu bëdi nga xol xam ne kii nii du boy nday ñum abalage mi nga japp di këll këllee victoire na nga dundé contane continuer te ñu lu koy ñaanal yalla na fi cëri gëna gën am gudu fan wërgu gu yaram yaa salaam mooy loolu amu leen lu ñu koy heure bu nga xé du ko sant yalla na fi yàgg te wër yaram bi gën fi yaram bi bay ko fi mu nekk ci jamm ak salam wala rek lañ koy ñaanal. kontaan nañ nañ bu baax. waaw ñoo jóge ba Morolan Morolan lañ jógee ñëw ba fii Pikine lañ fanaan démb mais lépp moo loolu waaw ma xëy ñëw fii damay delluwaat suba billaay walaay talaay moo loolu jël ñu lu ne billaay lii lañ dese woon daan Ama kese moo ñu intéressé woon par kii Seydina Mohamed mais kontaan nañ bu baax tur bi Maodo Malick Mbengue Maodo Malick Mbengue taaliba Cheikh billaay Ama dañ kaa dóor salaatul faatih yu wéer këng billaay te salaatul faatih amul ay caaxaan barki Seydina Mohamed man alaaj Malick lañ ma tuddee làmb ji dem def naa si ne mais lépp yàlla la teg nañ lépp si loxo yàlla di kontaan rek si Modou Lo billaahi di waayal Boy Niang nag. lay fay soxna si. Euh, Basirou Dieng waaw. Hmm. ah kontaan rek kontaanati sax laay wax parce que xarañ moom yàgg nañu indil fii ay ndam yàgg nañu bégal du démb rek yàgg nañu seral suñu xol. ñu koy ñaanal rek mu may yàlla may ñu ndaw si kanamu Boy Niang loolu daal lañuy ñaan moom moom yàgg nañu indil ay ndam fii nii ñuy kontaan di bégee du guleet daal du guleet waaw Boy Niang si xam na ne ñun ñoo ko mën ñoo ko mën papaam lañ dañuy jox respect. noo mais bëre du foofu du si doole si xel la <laughs> xale soxlawul doole de. moom xoola soxlawul doole bëre doole xel la dañ ko ëpp xel ëpp ko maayin te kale yu ñu indi àttanu ko waaw affaire bi da xoola euh, roi bi xale bu yaru bu teey la ñuy xool ñu jox ko bi ñu jox ko ko mais duñ ko jox ay amaayu réew yi ñëw du ñu moroomam waaw ñoom duma leen wax dara dam leen wax ñu gën a patienté wu rek te xam ne Modou moom instant bi tàmbaleegul bay pare waaw tàmbaleegul bay pare loolu laay wax waaw da koy téye da koy ba si kanam a kanam pareeguñ sax laa la wax si lañuy <laughs> waaw dafa leer <laughs> ah non non bu mu retraité léegi na dem ba si kanam desal na xale bu ndaw la dafa teel a fu mag yi rek looloo tax ñu bëgg koo magal mais du mag de xale bu ndaw la kooku dañuy jaar si kawam jaal waaw comme niñ def ay moroomam rek pousse pousse la voilà dafa leer hmm? bopp waa Pikine jàpp ñu aca ñu ngi leen di xaar comme niñ leen defoon démb bu gën dee boobu lañ leen di dooli waatal ok baax na waa Modou Khoule bilaay kay dund nañ ko nice moodu dañ ko ciaral billahi da ka yag li wax bari dañ ni bi dañ ko tambal dañ ko yag tambal moo tax si ginnaawam kase la ñuy toog ku yor sa mbër ko téye amul lenen moodu kase la ñuy toog ñun yeneen combat yi nañ ko nañ ko gëna top rek mu gëna top topp entraînement bu baax mo gën ñu koy ñaan rek yalla ma yar ko ndam ci booy si kaw boy ñaan mooy ñaar benn pousse-pousse la si ñun. waaw victoire mom dafa neex comme ni nga ñëpp di dun rek waaw te yàlla mom moom dañoo ànd ak ñun may ñu may ñun ndam nu sedd guy ñu koy bah. yàlla bu baax waaw am contentement bu baax waaw di gërëm mbooloo bu baax sun champion bi waaw amuñ fayam defal nañu lépp ñun wa parcelle waaw. waaw maa ngay dund mom dama kontaan sax xam nga mbooloo mo amul morom mulu Pikine amul kudu ke Pikine mo xam jahal jaaxal nañu ñun na parcelle fii lañ dëkk waaw interdit. Modou Lo dafa fas jom Ama fasut jom Ama bala moo dugg si géew bi ñaata minute vingt minutes muy si biir nangu doon dugg xam na ne Modou Lo moo ko mën ñun parcelle lañ ndëkk ragal dëkk bi ñun Modou Lo moo ñuy jàngaloo ragal dëkk bi xam nga Modou Lo gisuloo ko mu sol benn benn gàllaaj gisuloo ko mu takk songo ga ndox ndoxu gàllaaj xam nga lan lay songo ndox réew mi daan na sax doon wala waaye dafa xam ne comme dajal kooku jaaxalu ko dafa xam ne comme dajal kooku jaaxalu ko esal la ngeemoo de ngeemoo fii de foofu la jullee lépp foofu la defee lépp ngeemoo foofu de foofu la ngeemoo esat xam nga fii la doon ngeemoo dafa xam ne mbër bu dajal ko kooku fasu jom kooku fasu jom xanaa kii Euh, bokk internet Public SN TV ñu ngi leen di jaajëfalaat baax a baax topp ñoom tam a topp seen chaîne euh, YouTube Public SN TV ngeen mën a jokkoo ak ñun tamit ci TikTok Instagram ak toutes les plateformes digitales euh, ñu nga xamante ni si ñoo di ay mbokkam ay ay ànd jàmm ak ay supporter am di ngeen li nga xamante ni si ñoom ñoom la ñu wax kontaan nañ loolu ci ndam li nga xamante ni si kii di Modou Lo am na ko dem ci kaw Ama Baldé mu nekk yaatu moom Modou Lo daal di conservé li nga xamante si moo di titre de roi des arènes waaye tam am na beneen combat bu koy xaar muy diggante kii di Boy Niang dëkk Pikine ah, kon dina xam ba xam kii di Modou Lo waa Pikine dañ ko mu jàll wala loolu lépp nañ ci xam dara incha allah diggante ma kii di Boy Niang kon gis si am fii ci Parcelles Assainies unité ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni si yéen ñi safoo di ànd ak ñu ci seen TV eh, jërë ngeen jox leen dig daje beneen yoon incha allah